asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal waaw bëggoon a intervenir ci benn vidéo bu ma gis léegi ci Facebook euh, ci TikTok bi ci réseau sociaux yi muy amet Thiou ma gis ni nga ni xaw ma kontaanuma ci waal amet Ameth boo gis kenn du fay départ arrivé la ñuy fay te nit booy wax ci àdduna del xalaat bu baax la ngay wax yow waroon ngaa jombale sa bopp toog ci télé wala ci rajo naan kontaanoo ci waal yi àdduna bi nag yàlla sunu borom bi mooy wane boppam xaj na ñi xamul xamuñu waaye ñi xam xam nañu amet yow yow yaa taxaw ci kanamu àdduna bépp duma feccal papp di feccal doom booy bi papaam daf ñu koy forcer xam nga loolu man kenn nettalu ma ko man sa gémmiñ sama nopp man maa ko dégg maa taxaw ci jataay yaa ngi taxaw di wax premier bi buntu Sahel la woon bi ci des buntu penc mi jour bi album Volio génnee premier te pourtant yaa ngi woon Ramadan bin leen wooyee ne leen kaa leen jaay ji CD yi ñëwoo kan moo fa nekkoon jëmm ji di man bëri na artiste yi toog ci tele bi ñu nu woowoon ñu bokkoon ci convoi bi pour ñu dem jaay ji ko kenn ci ñoom ba oto bi jàddee ci ginnaaw ba ki na juuf ñaanal ñu ca la ñu wàcc oto ba dem seen yoon te tey ñoo ñooy topp ci ginnaaw waal yi yow tey loo lekk ci waal rek danga ko war a gërëmee loo toog di ko xeet wala nga koy ñaxtu yow warul génn ci sa gémmiñ bi nit nag olof nee na ku xeeb sa xal mu lakk sa dàgg dangaa xeeboon booy bi kon nit boo demee ba xeeb ko doo ko feccal yow théâtre yi ngay joué film yi ngay joué dramatique yi ngay def ci àdduna bi bàyyi ko gëmal sa bopp tey man ku taxaw sama kanam ne Amady Badiane dafa bëgg Wally Seck dama naan la waaw parce que galaay dafa sérieux dafa sincère dafa gëm boppam Wally doful de xale la mais doful nit ñi bari nañ lool mais gëm naa ne li ma mën a kitaabu ci alxuraan waali moo xam nit ñi mais nit ñi xamaguñu waali ba léegi. jarul muy tàkk jarul muy naan parce que ambition la bu mu am ci àddunaam ci xolam bii ba muy tuut ba léegi dafa mës a gëm ni moom day yor day avancé day doon ku ñëpp xam day doon kuy demal boppam. gis nga ni bu ko yàlla defee noonu da koy nangul li ko yàlla def xam nga loo war a def dem tarbiyu liggéey tëj sa gémmiñ gi te bàyyi wax ji. daan lu fa waay lekk sa wërsëg la kër boo ko bëggee yaa koy liggéeyil sa bopp terrain boo ko bëggee yaa koy liggéey sa bopp wërsëgu jàmbur ku cay wayaase war koo gërëm gis nga booy bi teg leen ko fi tegg demal nga liggéey demal def ni moom yaa ko jiitu ci aar fop calculer 2008 2009 ba tey yow waroon ngaa jombale sa bopp sax toog fi naan ay booy bi kontaanuma ci moom yow nit ñi ñoo kontaanul ci yow yow politicien nga doo artiste dem politicien nga demal nga politique may ni ñi jàmm. waali man fii laa ko def dama ko bëgg mais di nga toog moom yàgg mu ne la Pape Talla ma woo wala Pape Talla may sonal non tey bu ma ñëwoon tey tey tey damay dugg Ramadane damay bokk damay assister parce que dama faa am cër dama faa am wàll. mais damaa toog fenn wax li ma dund ak moom moom moom maay booy tey yow xaaj bi dundoo koog moom li ma teg ci sama bakkan bi jaayante ko ngir jëmm jooju tey bëri na ñi nga xam ñu ngi ci ginnaam te kenn defu ko damay toog fenn di ko wax man damaa séntu ci waali dara xam nga lu ma séntu muy yokk avancé dimbali ñi ko dara mais du dangay toog ci fii ay booy bi kontaanuma ci yow booy bi yow nit ñi ñoo kontaanul ci yoom xam nga lu ma bëgg liggéeyal gëmal sa bopp. gis nga àddina lépp loo ji rek moom ngay góob wax gi nag jarut muy bari man aw ma habitude di xam nga am na yoo xam te ni bugguma ci sori parce que damaa xam sama bopp man lu waaye di ragal a wax boo ma wooye ma wax ko parce que man dara ñoruma waaw gëmal sa bopp nga liggéey nga bàyyi booy bi mu ne ci jàmmam li ngay séntu ci moom war nga koo mën a amal sa bopp yow teraanga bu ne yaa taxaw ci télé bi oto bi ma jox oto changel ma oto defal ma lii mu defal la te pourtant am na ñu ko gën a yeeyoo ñoo xam te ni waroon nañ ko am te dafa sëgg ñëpp jox la ko nit du sakk jëf wax ji nag jarul muy bëri regleel nga nekk nit amet bal sa yi ngay def gëmal sa bopp gëmal sa bopp nit boo demee ba nekk ci benn groupe nga dem ba ci dem bay sentir ni man mi kenn nawatuma wala kenn nawatuma am na loo xam te yow yaa ko fa liggéey wax ji jarul muy bari nag wax ji jarul muy bari yow boo jógee def sa dara ju mel ni yóbbu katu kooy foo tollu na hein booy bi lii booy bi laa bal booy bi mu wàdd mayil booy bi suñu jàmm booy bi day liggéey bàyyil booy bi mu dem yoonam buñ ñu sonal waaye tool chaque jour booy bi booy bi booy bi booy bi maay booy deful kenn dara maay booy guerrier la jàmbaar la góor yàlla la bay faal la wax ji jeex na waaw wasalaam bàyyil maay booy mu liggéey dégg nga defal ni Amady Badiane ubbil ay projet ci sa bopp bi liggéey gëm gëmal sa bopp wax ji jeex ay booy napp nga nu torop ah